Modou tey ñu ngi la ñëw fekkaat ci Costero looy jaay. man maa ngi jaay ay yére fa xale yére mag yëpp ay reen mi rafet naa jiin body lépp maa ngi koy jaay waaw fii si marché Costero bëgg xale yi xale yi bañ a mer rek seen yaay kontaan lii doo tax ñu koy def du leneen. Modou naka marché ren. waaw marché bi métti rek. waaw métti daal foo ko natee moom weesu na ko ndax ñun amul lu dul marché te amul lu dul ambulance maanaam yàgg naa liggéey ci pegg tali waaye soo police yi da ngay waaw dàqalaandi fii dàqalaandi fële ñaan fii te loolu yëpp maanaam bañ bañ bañ bañ soxna yi mer bañ xalé yi mer bañ ci wajuri mar ndax nit mënu ñaa top arbitre bi di sàcc mbala ñi ñi door di xass xas di mbal di naan mbala dux yamba donc ñun li ñu am moy seen doole ji di fight di ñak di jëruñu ci loolu lañu ñuy waye waaye yi nga ko amna fi jamono sax li période bi bañ démé ba xam sax marché bi ñu ngi ñëw dañ ko dogo may événement bi ci lañ may li waye kélé waa fi yépp kenn dewutoon fi té lolou ñun féwul ñun so seen jaay ñun ci pekk talibi la ci lay mëna gi seen bop man sé dund seen wajur donc tay tay imagine li gëna a yow nga dëkk juri di dëkk alliance te moñ la baye nga jaay lo neexul ci xol han waaye ma foog ne nguur bi balal na leen pour ngeen jaay ci période corité euh, bi wa période corité bi waaye période korité bi taxul ñuy wax période corité bi taxul ñuy wax so dañu wara a baye a ñu firi ñu jaay comme niñ la koy defee maanaam ba tey police ya ngi leen di sonal tay ji ni waxee ni léeg-léeg ba si kanam boo toogoon tuuti ñu ñëw arrière arrièreal mbala muufal waaye leen taxawé ci yoon bi tamé da ngeen di sonal moto yi non jegewuñ yoon yi normalement tay bu ñu joxon ci ngeud ñun bu ben benn moment nek événement jot na war nañu def comme ni ñu defoon daaw baare yoon oto yi mën a taxaw ndax fi nit di jaar fi oto jaar mën nañu mën nañu doon benn donc dañu war a mën a am benn cër boo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp ñu may ñu ko ñun jaakar yi jaakar yi dafa bokk ci askan wi ci population bi la tey ak ñeneen ak ñeneen yi ñun ñoo marché bi donc ñun ñoo ñoo mayante ñun ñoo non seulement ñu ngi ñu ngi lancer appel suñu président Aron Baro ne mu ñuy bàyyi xel ñun jaaykat yi ñun yi bëgg nañ ku ñu dimbale bëgg nañ place bëgg nañ fi ñu jaayee donc emballagement yàgg naa wër dëgg na yàgg naa daxalante nag waaye nag nga bëgg a jaay nga da ngay xëy am na jamono da xëy ba jënd bi so tout hundred so doo ko jaay te yore bagage jàmbur yore koo war a dundal jox koo war a jox mu lekk yore ko war a waddal yore ko war a jox sumay mu sol nga xëy wàcc jot tout hundred doo ko mën a jaay loolu métti na yéen yéen ñi nga xam ne yéen ay journaliste yéen lañ am suñu suñu naqar di leen ko wax kon loolu yéen ci war a mën a jàppale ni ñu ba ñu xel ñu ñaan lii continuer ñu bàyyi ñu jaay bàyyi ñu liggéey ndax moo gën ñu topp àll di naan sàngara di tuux di sacc ah di def naka su noonu loolu amul njëriñ xale na bu demee ba yàlla may ko xel moo xam ne dafa war a mën toog di liggéey bañ a sàcc a njaalo bañ a loolu kooku dañ ko war a mën a jàppale ci loolu tey bëri xale yi dem baag yooyu yëpp loolu moo tax soo mooy ñu bàyyi ñu faat ñu liggéey dañuy bàyyi dañuy dañuy totiré dañuy dóor dañuy dàq ñuy daw ko dugg dem gën booy dem baag wee baag wee saa gañ saa perte la benn nga dem bala nga dund rek te kenn ku ne bu xamoon sa wërsëg ne doo sonn ah kon donc loolu dañ koy lancer Adama Barrow may si ngir jëmi Rasulullaay mu may ñu ngir yàlla ñu tax ñu liggéey en fait imagine yow ñu la te yow defoo dara dañ doon jaay ñu jàpp la tëj na la fayal xaalis loolu da ngay liggéey rek ngir loo ñaq loo jox sa waajur ak loo solole say say waa sa njaboot ñu jàppale si loolu dugal la ci kaso fayal xaalis nga fay xaalis doo ko génn imagine loolu loolu métti na ci koo xam day xos la ah kon donc ñu ngi nuyu ñëpp di leen di jaajëfal yéen ndax li yëpp moo na see bañ ñàkk a fekk waye manam ba bëgg lu xam askan wi leen neex leen naqari mo tax donc ñu doxale ni waye non seulement ñu am courage si yéen di leen ñaanal fanu gudd ak wér ba ba fekk jambar ngeen ndax li ni ni nii dama ko yaaka bëgg man ñu teg ma maayet may wax man lo dama ko yaaka bëgg ndax ba fekk ne maa ngi dund lo xam ak sama morom jaakar yi metti na amu fi ko joyé han ah, kon donc lool buñ buñ ba tay ñu taxal micro dañuy sant yalla ci lool donc bës bi dañ ko yaaka na bëgg bës bi dañ ko yaaka na ndax ñun li dafa metti tay daw da ngay xey dag juuti yow nga xëy dagal alliance ah nga taxaw bés jaaykat ñëw ñu nga doo fi jaay tay buñ la tey buñ la bëggoon doxal nga taxaw di pousser nii sax bu may événement bi bo romoon a pousse bi fi ñu jappal tej bu may événement bi ni comme ñu ko may ni bo romoon pousse pousse fi ñu japp yow jappal tej to te dañ koy dañ koy dund ñu jappal tej nga dem ci koso gi ñu fanaan loo bët te yow defoo dara da nga doon jaay ngir ñak jëriñu ñu jappal ci tej fay loolu la xaas nga do ko mëna a imagine loolu donc ñu dañu wara a bolé askan ñun ñu bolé ñu askan ñu xam askan lañ bok ndax xalé boo démé ba yalla may wax xel muy fay di liggéey ko dañ ko wara mëna jappalé war ñu ko mën a bàyyi maam muy taxawal ci mbéddi mbala muy dem ay baag wee tey ñi seen yaay ak mbala ñi seen doom yi di dé ci àll bi neexul lan bu seen dañu gis seen wajur ha ah, waye waaye demeewul nen tey benn saan lool yépp pour lan ki bañ sa bëgg sa yaay kontaan ak sa pap ak say soxna loolu tax nga di dem nan polisi polisi way dañ dee gis ne yeneen say borom pousse-pousse yi tamit dañoy bay yoon bi dem ci yoon tali bi te loolu tamit da nga moy loolu li naan li gars wax ne euh, ben ben bu yàqu ci sako ben gerte bu yàqu sako mo yàq yëpp donc tay man man na ñëw taxaw fi fu naturel duma ma di sab kenn Abdoulaye ndia jogu ba ñëw taxaw sama karam tay loolu moy dem ba day affecté nit ñi dem ci kaw yoon yi wa tay normalement ha ah, normalement tay ben saani bu doon ko xam tay dañu am li ñu bu ñëwoon tay ut buum bu ñëwoon ut buum wut ñëw buum dafi poté sax fi poté ba laan bi yegg understand bu laan bi yeggee kooku den ñu mën a ah yéen kat fii nga ñu yem yemal leen fii ku fi romb dañ la alamaan daan loolu xam naa naa xam samp fee pôl samp fee pôl samp fee pôl takk ci ay buum nañu fii nga yem ku ko romb bu ñu teg la ay daan loolu bu ñu ko defoon dañuy kontaan bari ñu dagal ñu faay fii ne la fii chaque feeru maa nga fay faay wante suñu fay ko faay wante waa taxsante fay ko moo ñu gënal xam nga ñuy dàqalante ñoom moo ñu gënal ñuy jàpp moo ñu gënal ñu ñàkkaa jaay xama tay bo jogo rew rew mbala nga jogo jai, saya dekk fi ñew di jaay sa yaay mi ngi sama dom bu ñu am lu jox sa papa mi ngi bàyyi sama dom ba am ñu leex sa soxna non xale yi non donc tay bo ñëwee taxaw bu xey bu wacc jot jaayoo dara ta mu leeral leer am na loo mu lay war ci kër ga ko ngor mënu ko li ngay dara moy jema ay tabata ben 100000 mbala 75000 thousand baag xamoo da ngay dund xamoo da ngay dé sa gañ sa per lolim nak ci bëgg ba bañ wajuri mer rek ñu ko waral yow fo jëgé ñëw fi jaay Sénégal nga jógee Sénégal ma jëgé Sénégal ndax li amul Senegal tamit daxante yi ci yoon bi marché bi waajaay julli bi su jotté événement yi mbaa du daxante. waaw senegal ak Gambie am différent bu ndaw xam nga am différent bu ndaw population senegal tay comme niñu ñu sonalee bolon ko ñu dañuy def grève wala ñu so buñu ñu jo wax seen ñaxtu comme ni ngeen def ni dañu am understand ñom tay ñu mané la fekk fi na laa paaka sa bagage nen dem do ben do ben 5 minutes nga taxawat te do fay do def dara. understand nga te teew loolu mënut a ñàkk comme emplacement ne dàqalaante nii mënut a ñàkk ci réew waaye comme maanaam comme opération bu mel nii c'est la première fois mu am fi c'est la première fois opération mel ni même ay jamono yaay jaama sax amoon na fi waaye da ngay dañuy ñëw bu ñu dàqee benn fan ñaari fan nga ñëw taxawaat ah waaye bii nag moom dafa dafa ëpp bii moom ni ko defee moom moom dafa ëpp soo non du yàq loi loi ndax ki nga ku du defar ku ne kuy defar ko doo bëgg a yàq donc ñu fiñ tok toog ñuy xool li nga moy amass rew ñu diko def fiñ tok fiñ xol li fi jamm ni jamm da amé ñu diko def donc tay ñun amul lu aram baro aram baro Barrow amul lu ay njabootam population aram baro mo la mom kon donc lolu du dara dañ koy ñaare mu mbaay ñu xel jàppale ñu ñu liggéey ndax bëgg a sin wajur moy taxa ñew Gambia amna ko koo bëgg a wajur moko taxa ko ci bi dëkk bi mo xam muy euh, ba Basse xam muy euh, Banjul mo xam muy birkam ko mo xam muy birkam Ba ñu ñu ay doxandéem la rek donc kon loolu dañ leen si remercier ah, am kontaan ne mbégte bu rëy